ñi ngi koy jàng ci université yi ci monde bi waaye am nañ ci gis-gis yu bëri yoo xam ne bukkul ak ni nga xam ne ni noonu la Serigne Touba gise woon suuf yanke te da ko leeral leeral yu bëree bëree bëri yoo xam ne nii bukkul ak ni ñuy jële baat rek naa suuf yanke mooy sooy bu nuy sol wala wala suuf leen bu nuy sol wala ñii naa suuf yanke dañ koo delloo ci jàkk yonent bi salaa salaam ñu naa ahlu suuf fa la ñeneen ñi di wax ni suuf yanke mooy maanaam ak ak ak bañ loo xam ne moom la yàlla teg ak di jéem a wut sa yoonu bopp ñenn ñi teg ak gisa ko ni sax ak weddi yàlla hmm. yooyu yëpp nag day jar nag ñu leeral ko ci anam goo xam ne nii addina bi foofu la toll média dafa am solo ci ci mbir hmm. te fi mu ne nii xam nga ne ci jamono ji jamonoy média la jamonoy eh, technologie la te xam-xam yi boo bëggee mu tasaaroo dëgg-dëgg faaw nga ci daje ak boroom xam-xam yi di ci waxtaan di ci lëlu ngir nga génne ay solution mhm, sëñ Moussa kon mu mel ni euh, tey jii euh, tudd nga wàllu ay boroom xam-xam yu daje. Mhm. kon mu mel ni débat la. Mhm. maanaam débat bu mag di pénc moo xam ne kon ne day indi sa xalaat. ñu def ko itam muy colloque international ndax mën nañoo xam réew yi nga xamante ni maanaam fas nañ ci yéene teew. dëgg la loolu buñ ko waxee dañuy dem ci programme bi tuuti. waaye tugguñu ci thème yi réew yi mën nañ la ni bu ñu ko xoolee am na lu toll ci ay réew yoo xam ni dafa toll ci fukki réew ak ñett mën nañ ni ci tënk yoo xam ne nii woo nañ leen ci colloque bi am na ñeneen sax yeneen réew yoo xam ne bu ma waxee fukki réew yi ñett mooy ñi nga xam ne dañoo fas yéene joxe li ñu yor nga xam ne dañ dañ leen dinañ leen ci déglu. maanaam jël fa kàddu. def waaw waaw xam ne dañoo dañ leen a jox tem jox leen ab thème ñu gëstu ci yónnee résumé bi wëlbatikuwaat cëf ñu jox ñu invité leen ngir ñu teew war a joxe li ñu yor ñooñu noonu toll na ci fukki réew ak ñett am na ku dëkk Soudan am na ku dëkk Gambie am na ku dëkk Belgique am na ñaar ñu dëkk Paris am na ñaar ñu dëkk Mauritanie am na kenn ku dëkk Inde am na ku dëkk Amérique am na ñaar ñu dëkk Égypte kon daal ci tënk day mel ni kon Afrique Europe waaw États-Unis euh, Amérique. Asie ak Asie ñëpp représenté nañ leen. teew si nag mhm. muy euh, muy indi kon nag ay ay ay euh, gisin yoo xamante ni dana wuute ci wàllu tasawuf mhm. wuute itam ci wàllu ni nga xamante ni lañ koy jàngatee. tey borom xam-xam yi nga xamante ni fas nañ fa yéene jël ay kàddu am lu ñu gaaral ci xam-xam ndax mën nga ñoo defal ab nataal. wala bu doon dañ leen doon euh, misaal ñan la gën a doon ndax ay sëriñ lañu wala ay jàngalekat lañu wala ay gëstukat lañu waaw kay buñ ko waxee am na même ñett ñoo ñu ma tudd sax dafa am ñeenti sénégalais yuñ ci tànn ñeneen ñoo xam ne ay sénégalais lan mhm. waaye ay gëstukat lan bu ma waxee ci tënk nag mën naa la ni ñiinu woo ñëpp kenn ku ci ne tem ban la jox da nga caa gëstu ba géeju ci ba xam ko ba mu wóor ni siiw nga ci ci àddina bi ni loola xam nga ko kon ñoom ñëpp kon mën naa ni ay gëstukat la beneen bi ci topp ñoom ay suufiyanke ñi ci ëpp ay suufiyanke la beneen bi ci topp mooy ay docteur lan wala ay jàngalekat yi université ay cadre ci réew man bokk ba nu gëstu ko ba xam ne ñoom ci réew mooma euh, ci li nga xamee ne noonu la noon noon noonu lan ko waxee wala nanuy liggéeyee nin bëgg a liggéey ak ñun noonu lan doon liggéey ci réew ma ba siiw ci ci àddina bi àddina bi xam ni ñoom ay boroomi xam-xam la kon ci tënk ñooñu moom mooy ñi nga xam ni fas nañ yéene bu dee ci réew mi it ñi nu bu mën la tuddalee tur yi di nga xam ni ñooñu ñu yeyoo ab tem lan ñoo xam ne euh, war nañ ko gëstu foofu sax du du du du ngir rek xëcc waa euh, bitim réew jël ndax bu ma la nee ñeenti sénégalais jël lu mat fukk ak ñett bitim réew day mel ni kon dañoo xeet li ñu yor wala amuñu ko moo tax bari na ñu ëpp ñii ñi ngi ci biir réew mi ñoo xam ni gëstuwunu leen mën naa am wala gëstu nañ leen ba pare waaye teg leen ci côté ngir jox ñii ab cër akit it tasaare lim ci jublu dëgg-dëgg tasaare wu njàngaleem sëñ bi ginnaaw ñoom ci réew mi leen dëkk xam nan xàmmee nan xam nañ leen te xam ci réew mi la ñuy gëstoon bokkul ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew doon gëstu wala ñu amoon benn gis-gis ci sëriñ bi wara dikk nag gis-gis boobu ñu fexe bu dee gis-gis bu juba ñu tasaare ko ñu xam ko bu dul gis-gis bu dul noona ñu nocc ko ci seen i bopp ci kaw yoon woo xam ni bil xikma lay doon wal mawisatul xasana mhm. jërëjëf euh, sëriñ Moussa Ndoye xam naa dinañ ci dellusiwaat euh, may fàttali rek ne euh, fi ñu toll nii ci ndakaaru King Fahd Palace ñu ngi fay amal ubbite ñaareelu colloque international sur le bi nga xam ne mi ngi war a am ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre ngeen xam ne ubbite gi ca ndakaaru lañ koy defee fii ñuy waxee ak yéen incha allah dinañ jokkoo ci kanam tuuti ak équipe bi nga xam ne moo fa teewal almouridiya foofu ci hôtel King Fahd Palace waaye itam nag li des ci programme bi dañ koy def si Touba muy programme bu yaatu boo xamante ni dinañ ci ñëw tuuti euh, pour résumer un peu en français avant de donner la parole à Oustaz Mohamed Sarr qui va aborder les questions en en arabe euh, nous sommes en direct avec euh, l'équipe de Al Mouridiyyah de Dakar depuis l'hôtel King Fahd Palace de Dakar où est lancé aujourd'hui euh, cet après-midi les travaux l'ouverture officielle Euh, du comité par le comité d'organisation du Grand Magal de Touba euh, du vernissage du colloque de, international sur le soufisme qui aura lieu du 22 au 26 novembre 2014. Euh, l'ouverture officielle se fera à Dakar, mais les de commission et la cérémonie euh, de, de, de clôture auront dans la ville sainte de Touba. Euh, une occasion qui de regrouper beaucoup de savants de la communauté musulmane appartenant à l'Europe, euh, aux, aux, Amériques, euh, que ce soit également en Asie ou en Afrique, avec 14 euh, nationalités qui sont recensées et qui auront à présenter plusieurs thèmes qui vont refléter la diversité de la Ouma islamique et surtout les diversités d'appréciation des soufismes qui est important et qui fait partie de l'islam. Nous aurons l'occasion tout de suite de revenir avec Sérine Moussandoy sur les contenus des thèmes, des termes de référence et des commissions en attendant de recevoir l'antenne depuis Dakar où l'équipe de Al Mouridiyyah s'est déjà mobilisée en direct pour vous faire vivre l'événement euh, kon nag oustaz Mohamed Sarr ma bàyyi la nga séq ak euh, Serigne Moussa Ndoye laaj yi nga xamante ni moo aju ci wàllu arab euh, assaadatu wa sayidat al mustami'una wal mushahiduna al kiram li hay'ati al qanat al Mouridiyyah TV wa naqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa baadu haza barnaamijun xaas لاستعداد عقد مؤتمر ديني للطرق الصوفية ونحن معكم مباشر مع ضيفنا الكريم موسى نوي لذلك نريد أن نطرح إليك عدة أسئلة لشأن هذا المؤتمر أيها الضيف الكريم ونقول لك, لك أهلا وسهلا وبعد فالسؤال الأول تريدون إقامة مؤتمر ديني التي خاصة لطرق الصوفية وهذا المؤتمر هل هو دولي أو غير دولي وهذا سؤالي أطرحه إليك أيها السيد الكريم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء المستمعين والمشاهدين لقناة لقناة المريدية nuxayikum taxiya islaamiya wa nuraxibu bikum fi hadihi aljilsa alkarima almaymuna wa naqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh طيب قبل أن أوضح هل هذه الجلسات والندوة والمؤتمر مؤتمر دولي أم مؤتمر ما يسمى بمؤتمر وطني معروف أن الوطن والمؤتمر الوطني عبارة عن اجتماع خاص لحل بعض المشكلات الأمة خاصة أمة الإسلامية ولحل بعض الأزمات الداخلية والخارجية وللمشاورة وتبديل الآراء والأفكار حول الباحثين الحاضرين الذين لا شك أنهم هم بأنفسهم سيلقون بعض الدروس takunu hadihi durus ibratan liman arada an ta an yaxuda ibra فالمؤتمر قد سبق أن كونا لجنة خاصة ودائرة خاصة تنظم هذه الجلسات وتنظم هذا المؤتمر الكريم وقد سبق أن نظمناها في طوبة وبعد طوبة في بعد سنتين لأن من مشروع الدائرة روض الرياحين وأنتهز فرصة لأحيي وأسلم جميع المشاركين والمساهمين معنا والذين ساهموا في خدمة الشيخ الخديم رضي الله عنه والذين هم بأنفسهم يعني يكدحون أنفسهم ويتعبون ليلا ونهارا فهؤلاء لهم جزيل الشكر والتقدير أعني وأخص بالذكر الشيخ محمد بشير والشيخ أحمد بدوي والشيخ شام بوسو والآخرين منهم كشيخ عبد مبكي عبد الرحمن والآخرون من العلماء الأجلاء وشيخنا مبكي عبد الودود وكلهم يبذلون جهدهم خسارى جهدهم في إبراز تعاليم شيخ الخديم رضي الله عنه فلذلك أخذنا هذا المؤتمر وأتينا إلى طوبى في هذه السنة بعدما تشاورنا وعقدنا هذا المؤتمر وستكون الجلسات قبالة أو ما يقارب أربعة أيام خمسة أيام أربعة أيام ثم بعد ذلك سننتهز فرصة لإعلان ولإبراز كما قلت تعاليم شيخ الخديم ولتكون لأن الشيخ الخديم لم يكن وطنيا فقط فحسب ولم يكن يسكن في السنغال فحسب وإنما هو كما قلت بالألفية آنفا هو ليس إنسان وطني فقط بل هو دولي لأن جميع الدول يشاركون معنا في الشيخ الخديم وفي معرفة وإرادة معرفة الشيخ الخديم ولذلك نريد أن نصبو إلى هذه هذه الأهداف السامية وشيخ الخديم رضي الله عنه قد أشار لنا هذا قبل ربما أن يقول في في في عصره هو بنفسه لأنه كان يقول كما قلت يا أهل البر يا أهل البحر عجوا لبر بحر سقائي فلذلك إذا على هذا نقول بأن هذا ليس إنسانا محتكرا بما بما عنده أو ليس إنسانا يعني يريد أن يركز أشياءه في وطنه فقط وإنما مد يده لجميع العالم فلذلك إن شاء الله sa naquumu bi tawsiici maa ladayhi wa maa ladaynaa min taalimihi inshaa allah li yakuna hadi aw li takuna hadihi alxidma xidmatan shay xidma xaasa bi nisbat li lana wa li wa takunu laha thamara bi nisbat lil jamii adduwal alaalamiya inshaa allah aywa fa fa fa fa in hada almutamar qad iqartum mawduan ham wa hada almawdu ma alfarqu baynahu wal mawdu almaadi في المؤتمر يعني الفارض هناك هناك فرق لان في الموضوع السابق هناك تصوف لان مثلا قبل ان اقول لك الفرق التصوف له جوانب جوانب كثيره ومتعدده ومختلفه جدا لكن عندنا في السنه ما قبل الماضيه هذه السنه قد اخذنا التصوف واتينا بما ما كان للتصوف من حلول بالنسبة للأزمات الدولية هذه إذا ليس يمكن أن نقول هذا الموضوع ليس كموضوع هذه السنة أخذنا التصوف من جانب آخر فما هو هذا الجانب الآخر أي أخذنا التصوف مكانة التصوف أو دور التصوف في الأمة الإسلامية إذا في الأخلاق fi sulukiyaat fi azamaat fii fii fii hadihi al ashyaa kullaha yumkin an nati biha xululan xatta takuna amran shaafiyan aw aw naqul kama yaqul ilaajan shaafiyan bi nisbat li jamii al azamaat al daaxiliya wal xaarijiya fa lidalika ixtarna hada al mawdu aywa jayid uh, wa sualu thani man allazi nadamahu uh, wa ma ahdafu al multaqa yani almunadimuun kama qultu laka bi ann almunadimuun taarif ann màggal tuuba taazim tuuba yowmun azim bi nisbati lil muridin li ann cheikh huwa alladi awalu man faalahu wa cheikh amara bihi wa akkadahu limaada li annahu huwa bi nafsihi anfaqa fi awali yowmi taazim amaama anzaari almuridin al awail summa baada dalik sanara ann cheikh alxadim bada badahu jaa xulafaauhu yafaluunahu wa yamuruuna annaas bi hada shay summa nahnu bi anfusina indana dawrun kaamil walakin almuridun kulluhum laa yastatiun an yunazimu hadihi alxafla bal ixtaaru lajna xaasa mukallafa bi lajnati alcilmiya min daaira waaxida rawdu rayaxiin wa kallafuhum fi an yunazimu hada al mutamar al azim mutamar duwali fa qaamu bi tanzimihi awalan fi dakar wa tanzimihi awalan fi wa thaniyan fi tuuba li an hada al mutamar sa tuftatax aw sa yuftatax fi fi dakar wa sa yuxtam fi fi tuuba insha allah فلذلك دائرة أنصار الدين هم لا دائرة الروض الرياحين هم الذين قاموا بتنظيمه بإذن من لجنة التنظيم مقال تحت قيادة الشيخ محمد بشير عبد القادر وجميع أعضاء هذه اللجان إن شاء الله كلهم اتفقوا على تأسيس هذا المقال نعم وأما الهدف نعم الهدف نعم الأهداف كثيرة جدا ولكن يمكن أن نلخص ونقول لكم بأن الأهداف مهم الهدف الأساسي هو إبراز دور التصوف للأمة الإسلامية وتفعيله في ضوء أو على ضوء التحديات المعاصرة التي يواجهها هذه هذا الهدف يمكن أن يقال بأنه هدف أساسي وهدف يمكن أن يقال هو الهدف العام أما الأهداف الخاصة بالنسبة هذه الجلسات الكريمة يمكن أن نقول بأنه أول هناك خمسة يمكن أن نحن بأنفسنا قد جمعناه قد جمعنا هذه الأهداف قد جمعناها تحت خمسة أهداف الهدف الأول يمكن أن نقول بأنه تشخيص حالة الأمة الإسلامية تشخيص حالة أمة الإسلامية تشخيصا وافيا بغرض إبراز مشكلاتها أهم مشكلات ثانيا بيان حقيقة التصوف الإسلامي ومقوماته هذه هي نقطة أساسية نقطة مهمة جدا مهمة. بالنسبة لي ال ال ال الإسلام وبالنسبة للأمة الإسلامية أي بمعنى يدل يدل على اهتمام التصوف اهتمام المتصوفين بالنسبة للإسلام والرسول أمرنا بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث إنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وثانيا بالإضافة هناك توضيح ما للتصوف من إمكانيات للإسهام في معالجة المشكلات هدف الثالث أو الرابع توفير فرص للتبادل للتبادل والتباحث حول subuli tafciili dawri tasawuf fi xayaati alumma almucaasira wa nuqta alxaamisa إبراز تعاليم مولانا الشيخ الخديم وهذه هي النقطة المهمة جدا مهم جدا التعاليم الشيخ الخديم يمكن أن نقول بأنه بأنها هي تعاليم الإسلام وتعاليم الإسلام معروف أن القرآن والسنة القرآن والسنة هما المصدران بالنسبة لتعاليم الإسلام فجاء الشيخ القديم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول ذلك كان يقول بأن العلماء ورثة الأنبياء والشيخ القديم كان عالما تقيا ورحا و, و, و, و هذه الصفات لكي نخرجها ولكي كيف نقول نبرزها يحتاج إلى دقة أيوة. ويحتاج إلى إلى إلى لقاء مثل هذا اللقاء أيوة لذلك أطرح إليك هذا السؤال آه الذين الضيوف الذين يأتون إلينا لزيارتنا في بالنسبة لهذا المؤتمر م. هل يأتون بآرائهم وتعاليمهم لنجمع ما معنا يعني كيفية كيفية يعني نعم تبادل تبادل يا أخ وبالإضافة هم بأنفسهم لا يجبرون في أن يقولوا قل هذا أو اترك هذا هم هم هم متعمقون بالنسبة للعلم وبارزين في العالم هم أناس عالميين هم جاءوا من دو من من دول شتى من امريكا من من من من, من آسيا, اسيا من افريقيا من جميع الاقاليم العالم فحينما جاءوا akid annahum sa yubrisuuna aaraahum wa afkaarahum mm-hmm. Mm-hmm. wa hum bi anfusihim yumkin an aqul bil xulaasa mm-hmm. al jilsat kullaha axzun wa ita axzun wa ita la budda bil ityaan wala budda wala budda bil axz li annahum haza ma yuriduun wa ida ma axazuhu laa budda an yarji'u biha ila duwalihim fa lidhalika idhan laa budda an yukhrijuu afkaarahum aywa jayyid jayyid yaani jawaab sahih wa hunaaka su'aal aaxar maa hiya al-mahaawir allatii naqtabisuhaa min min al-mu'tamar فالمحاور يمكن أن نقول بعد الموضوع الكبير الموضوع الذي أخذناها اليوم أخذناه اليوم في هذه المؤتمر في هذا المؤتمر al mu'tamar mu'tamarun duwali wa nahnu nuridu an nushakhisa at tasawuf wa mushkilat al umma فلذلك أخذنا الموضوع بدور التصوف في حياة الأمة الإسلامية أيوة. ثم تحت هذه هذا الموضوع هناك عناصر ومحاور أول عناصر هناك ثلاثة التصوف حقيقته ودوره في بناء شخصية المسلم ثانيا alfikru suufi wa taxaddiyaatu raahina lil umma thalithan altasawuf wa dawruhu fi ifshaai silm wa xalli siraa fi l umma fa hadihi salaasa yactabarnaha ka maxaawir insha allah sanunaaxisuha summa bacda zalik sanati bi tabaadul araa wa isham fi jamici almashaakil walxulul كلها إن شاء الله جيد جدا فإن هذه المحاور مهمة جدا ولكن إذا أتيتم بهذه المحاور لا بد من النتائج إذا ما هي النتائج التي تنتجونها شكرا لك وكثيرة جدا النتائج كثيرة لكن سنلخصها إن شاء الله لأن جميع النتائج التي نعتبرها نحن لا بد أن تكون نتائج حسنة ولا بد أن تكون نتائج مربحة بالنسبة لنا لأن كل ما أردنا la nuriduha illa an takuna naf'an lil muslimin wa ibraz جميع خدمات شيخ الخديم رضي الله عنه يمكن أن نقول بأننا سنرتق... سنترقب وسننتظر النتائج كما قلت لك أولا سنرتقب وننتظر أننا في نهاية ستكون هناك تشخيصات مهمة تشخيص الأمة حالة الأمة الإسلامية تشخيصا وافيا وثانيا أننا سنترقب في إبراز خدمة الشيخ الخديم رضي الله عنه ونشره وأننا في النهاية إن شاء الله هذه الجلسات كلها ستكون مكتوبة إن شاء الله بكتاب واحد أيوة. بدون أن نتركها هكذا هباء منثورا أيوة. وتكون كلها منشورة wa incha allah hadihi nataij satakunu maslahatan lil umma al islamia mm. wa takunu ibratan lil axarina xata an nihayat alsana almuqbila fa lidalika mm. jamia nataij التي نترقبها وننتظرها نظن أنها إن شاء الله ستكون هذه النتائج كلها مربحة بالنسبة للإسلام وللأمة الإسلامية فالإسلام جدير في أن نذكر بأنه, بأنه إسلام للكل لجميع البشر لأن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فلذلك إذا ليس للإسلام محل وليس للإسلام islami rukun mhm. wa laysa lil islami eh, umma waxida mhm. innama ummatu lbachar mhm. fa lidalika nantazir an takuna maslahatan lil ummati lislami jayid jiddan inna diina inda allahi al islam al islam eh, al islam amma jamia eh, jamia nas bal hunaka yani sualun axar فإذا قلنا بأن بأننا نعقد هذا المؤتمر لابد من ضيوف لذلك أسألك كم عدد الضيوف أم هم سنغاليون فقط أم هناك يعني الأجانب الضيوف كلهم يمكن أن نقول من دول متفرقة أيوه. هناك أربعة سنغاليين أربعة سنغاليين مدعوون لإبراز ما لديهم وهذا لا يعني أنه أن أنهم في السنغال هم هناك أربعة فقط هناك أربعة أشخاص بل هناك عدد كبير جدا وليس ضئيلا إنما هناك أشخاص آخرون متمكنون في فنونهم متمكنون في تخصصاتهم ومتمكنون في إبراز ما للآخرين ما للآخرين من تعاليم fa lidalika idan hunaka arbaat ashxaas li annana indana duyuf idan laa budda an nuraxiba bi duyuf wa natruku duyuf wa yubrisuuna ma ladayhim walakin bi nisbat lilladina jaau mhm. yatuuna min duwal kama qultu laka mhm. ala al aqal mhm. arbaata ashar aw thalata ashar ashxaas jaau min duwal mutafariqa yaani min sudan shaxs waxid min gambia shaxs waxid min belzika eh, kadalik shaxs waxid min paris shaxsayn من باريس من فرنسا يعني شخصين ومن موريتانيا شخصين ومن هند يعني شخص واحد ومن موريتانيا شخصين نعم ثم أمريكا ثم مصر لكن هذا ليس بغريب إنما التصفية عملية التصفية عملية اختيار وانتخاب هؤلاء اخترناهم بانه بما انهم دوليون وبما انهم معروفون لدى الدوله لدى, لدى العالم وبما انهم هم متمكنون منهم دكاتره منهم باحثين منهم خبراء من ناحيه التصوف فلذلك جمعناهم واخترناهم لكي يبرزوا ما لديهم امام الجمهور جيد السؤال الاخير هل هذا المؤتمر قد مدكم يعني مدتكم الدوله يد المساعده وما هو البرنامج يعني آه بالنسبة لهذا السؤال م. كنت أريد أن أود أن أتركه مع لجنة التنظيم آه أيوة لأننا أيوة. نحن لا نعرف إلا الأوراق فقط, أيوة فقط. إلا الأوراق أيوة. نحن لجنة ما, ما نسمي بلجنة م. لجنة آه العلمية نحن مع مع الأوراق فقط لكن أما ما يخص المال أو شيء من هذا القبيل فنتركه مع المنظمون أو الذين ينظمون أو الذين عندهم لجنة مالية لكن سيحضرون إن شاء الله إذا طرحت لديهم ربما سيجيبونك إجابة شافية ولذلك أقتصر على هذا ان شاء الله والبرنامج هل حددتموه نعم البرنامج موجود مم. البرنامج كما قلت لك مم. البرنامج يبدأ بالخلاصة يبدأ من يوم يوم السبت اليوم في هذه الآونة في هذا الوقت بالذات ثم بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك يوم الأحد ثم بعد ذلك يوم الاثنين ثم يوم الثلاثاء وينتهي إن شاء الله ثم نودع الضيوف في يوم الأربعاء في الصباح بعد الغداء سيلتقون مع كيف نقول قبل الغداء أيوة. سيلتقون مع الشيخ سيدي مختار ويكلمهم إن شاء الله ثم بعد ذلك يشكرهم ويدعو لهم ويرجعون إلى دولهم بعد الغداء إن شاء الله هذا بالخلاصة يعني هو البرنامج أيوة جيد جدا نشكرك غاية الشكر أيها الأخ الكريم سيد مسعد أرد الكلمة إلى سيد محمد لامين Diouf jërëjëf Oustaz Mouhamed Sarr xam naa ne damay tënk tuuti mën a may sëñ Moussa mu dallu tuuti ñu xam ne kon tey ni ñu leen ko waxee ñu ngi ubbi colloque international sur le soufisme bi nga xam ne comité d'organisation bu màggal gi ñoo koy def euh, Serigne Moussa Ndoye mi nga xam ne moo fi teew nag di kenn koo xam ne dafa bokk ci commité scientifique bi bokk itam ci Rawdu Rayaahin ñu xam ne li nga xam ne moom la ñu waajaloon ci programme bi bokkoon na ci vernissage benn exposition boo xam ne ñi ngi ko waroon def ci euh, Masaalikul Jinaan tey nag bi ñeenti waxtu tàmbalee jëm juróom benni waxtu ci ngoon bu fii ñuy waxee ak yéen mu war a am cérémonie d'ouverture fi nga xamante ni mooy King fat Palace foofu nag nañ ko baaxoo def rek jataayu lislaam bu ne alxuraanu karim moo koy ubbi suñu noppee ñu soog a ñëw nag ci allocution yi muy euh, dalal gan ñi bu ñu noppee itam leeral lan mooy colloque bi yan bunt lañ ci jàpp ak nuñ ci war a waxtaani bu ñu noppee itam gis ne këri diine yi nga xamante ne ñoo teewal lislaam ci Sénégal dinañ fa jël kàddu ki nga xamante ni itam moo représenté mboolem délégation yi teew ci colloque bi wax ay kàddoom mu am discours boo xam ne itam ñi ngi ko jagleel eh, njabootu Cheikh Sidiye bi nga xamante ni eh, day mel ni ren am nañu taxawaay bu ràññeeku sëñ Moussa day mel ni famille Cheikh Sidiye Baba dafa mel ni am nañu taxawaay bu ràññeeku ci ci colloque ren bi. waaw ndax eh, Cheikh Sidiye baaba dafa amoon relation bu dëgër a dëgër ak sëriñ bi amoon na taarix am taarix bu siiw sax digganteem ak sëriñ bi. Euh, loole nag lañ bëgg a dekkal moo tax ñu jël bis bi tuddee ko Serigne Cheikh Sidiya Baba léegi kon mooy tax ak njabootam euh, ñu jël fa kàddu ci ubbite bi dina rafet loolu moo tax ñu dugal ko foofu incha allah. Hmm, gis nañu tamit euh, ci wàllu colloque bi lu bokkul ak allocution yi rek waajal nañ fi ay tukki nemmeeku. Hmm. muy ay ziar. Hmm. ak ay ay ay zikr. ak lu mel ni ay waxtaan ci sëriñ bi. loolu ban njariñ la am ci. li nga xamante ni mooy colloque bi ngeen gis muy wax ci wàllu tasawuf ñu boole wàll ci loolu ci gan ñi. waaw euh, mu mel ni tournée boobu nga xam ni ñu ngi ko doon def di ko dem ci kër diine yi e, xeetu yëgle la. xeetu yëgle boo xam ne e, comité d'organisation ñoom ñoo organiser loolu. jël ko di wër kër diine yi ngir waxtaan ak ñoom ak gën leen a siiwalal gën leen a ubbi seen bopp ak it rataxal diggante yi ndax. Euh, diggante bi euh, ñi nga xam ni ñoo fi des ñoom ñoo ko war a doxal bu baax a baax dox diggante yi ak euh, jokkaat mbokk yi loolu moo waral loolu bi ci teguwaat ba tey wër boobu noonu nga xam ni doon nañ ko wër defoon nañ ko daaw defoon nañ ko ci at yi passé nga xam ne maanaam dafa dafa dafa amoon njariñ ci côté ndax kenn ku ci nekk kun ci jàppoon nga xam ni moom ngay ñëw da nga yëg ni tuubaa am na lu mu la jox beneen cër beneen dimension kon ngay xoolewaat dimension bi ngay xoole xoolewaat Touba ak ba nga ko doon xoolee dootul bokk su ko defee looloo mooy li sëriñ bi doon ndox sëriñ bi aw fas la yoroon fas li ci war te xam nga ne war métti na neexul waaye gis na histoire sëriñ bi boo duggan ci Sénégal wallaay loolu defe naa ñu bari sax seetlu ko. boo duggan ci Sénégal gis ñu naa la sëriñ bi fii la julli sëriñ bi def na nii sëriñ bi def na nii di nga xam ne sëriñ bi ku mën a dox ak mbokk la mm-hmm. ci jataay bu ci nekk fii ci Sénégal léeg ñun la Dakar gi fii la doon julli am na ca Kajoor fii ne boo demee fa ñuy wax Dakar ga nga xam ne ca yoonu Mbaabu garage am na ca fenn am na ci boo xoolee ci Kajoor feneen foo xam ni am na ci eh, ginnaaw fii ni ñuy wax xel koom mm-hmm. am na ci ay côté yeneen yoo xam ne bari na foo xam ne dañ leen sëriñ bi jaaroon na mm-hmm. nga xam ne dem na ci yoonu Bambey wi am na ci ay côté yoo xam ne sëriñ bi loolu la doon dox te dox eh, ak mbokk lu am solo la ci lislaam ak rataxal ko mm-hmm. kon gis nañ sax ci communication yi nga xamante ni moom la ñu war a def rawatina ci ñaareelu fan bi boo xam ne eh, professeur Mokhtar Kébé bu Tiwaawan moo koy def mu jëm ci maanaam eh, turuxu suufi mm-hmm. nan la ñu mm-hmm. doxalee ak bennoo ak jàmm mu jël misaal ci Sénégal c'est gis nga ni boo xoolee kon loolu li muy wane mooy yaatal ba tey ndax euh, Tiwaawoon am na fa kenn ku war a bokk ci mooy sénégalais yi yi nu tànnoon mhm. xam nga am na ku ñuy wax oustaz Mokhtar Kébé boobu mhm. waaye am na keneen ku ñuy wax Abdourahman bu Naama Kunti mhm. nga xam ne moom it ci Njaasaan la bokk ñu jël leen dugal leen ci programme bi tànn leen te nu nekk nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay royu waay lan ay borom yu xam-xam lan yoo xam ne war na noo mën a indi ci tasawuf loo xam ne nit dina ko jariñoo moo tax ñu tànn leen ñu waxtaan ci côté boobu kenn ku ci nekk liggéey na ci liggéey boo xam ni topp nañ bu ba xam ni yeyoo nañu jox ko thème bi ñu jox ko kon thème bi foofu li liñ ciy dégg mooy eh, defuñu ko ngir murit gi kese mm-hmm. defuñu ko ngir tijaan bi kese waaye dañ koo def ngir umma yi mm-hmm. toujours loolu lañ bëgg a wuyoo umma islamiya bi nga xam ne moom la ñuy woote moom la ñuy leeral foofu pour joxe ko nga ñëpp bokk ko ñu gëstoondoo ko génne ci liñ ciy génne bu dee ay njëriña ñu bokk ñun ñëpp euh, oustaz Mouhamed Sarr euh, dégg nga li Serigne Moussa Ndoye wax mm-hmm. mu wax ne tasawuf doon na loo xam ne Euh, gis nañ ni day boole lislaam te Serigne Touba itam liggéey ci liggéey bu am solo yow tey nan nga gisee euh, cër bi nga xamante ni cëral nañ ko ci kër diine yi ba noppi jox leen fa parole ñu war faa def discours ci cérémonie d'ouverture bi am ci ñoo xamante ni itam jël nañ leen ñu amee ay communication yoo xam ne war nañ koo def waaw loolu ni ma ko gisee fa tabaarakallah lu rafet la ndax lislaam moom du du du ay pàcc benn pàcc rek la te lislaam dafa nekk loo xam ne dafa boole ñëpp ndax euh, boo seetee comme sëñ wax na ko léegi mooy yonent bi aleyhi salaatu wa bi mu ñëwee dafa jël diine yëpp boole leen muy benn wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas boobu nga waxoon hmm. léegi loolu mooy tekki ni kon euh, turux yëpp benn lañ ndax Sëriñ Tuubaa mi ngi koy wax ci benn euh, bayit bu gàtt ni képp koo xam ni foo mën a ŋànk ci jëm ci tarixa boo mënti doon te yëpp yéen ci benn daat bi rek lañ jëm mooy ci borom bi subhaanahu wa kon kay xanaa su fekkee ni ay maanaam ay farq am na ci diggante ñàkk xam la waaye turux yi moo amul benn farq ndax boo seetee diggante Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu ak euh, maam Alaaji Malik ay mbokk lañ euh, ci bu wér taarix indi na ko ci fi ñu mbokk nga dem ci beneen beneen taarix nga gis ni mbokk gi noonu la demee mel ni garab nga xam ne kon ñoom ñëpp dañoo am ñaar muy mbokk nañu ci wàllu cosaan waaye bokkaat nañu ngir diine lislaam muy pas-pasu lislaam kon loolu rafetlu la te bu ku fekkee ne taalibe yépp xam nañ ni euh, ala kulli xaalin sëriñ si nii la ñu jàpp woon noonu moo ñu war kon loolu lu rafet la euh, rawatina jël ci euh, borom xam-xam bu nekk ñu jëlee ko ci benn tarixa mu ñëw loolu wax dëgg yàlla mooy gën a ubbi boppi nit ñi ba xam ni diine lislaam benn la fi ñu jëm fenn la ku ci nekk rek da nga war a sellal war toppatoo sa sa mbokk comme ni ko borom subhanahu wa taala waxee ne wa'tasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu euh, jërëjëf oustaz ñu gis ne wàllu communication yi dañ ko def ay session session bu njëkk bi ñu ngi ko def soufisme développement spirituel et personnalité musulmane mhm. maanaam tasawuf mhm. ni mu doonee loo xam ne dafay defar nit ki digganteem ak boroomam waaye tam mhm. day tax nit ki soo ko gisee rek nga xam ni kii jullit la boo xamante ne bu matale la hmm. te foofu yaakaar naa ci la communication bu euh, docteur Cheikh Taïb Abdoul Wahab hmm. nekk hmm. ci la bu Serigne Saliou Salam nekk bu Sénégal naka noonu itam docteur Omar Dia bi nekk Gambie ci la communication nekk ak itam ki nga xamante ne mooy oustaz Abdourahmane Kounta bu Sénégal maanaam bunt boobu bu njëkk boobu session boobu lan mooy li mu ci wàllu communication ci tasawuf waaw mu mel ni Eh, xam nga ni ko waxee saison la maanaam muy ay maxaawir maxaawir lañ koy tuddee muy ay tomb yoo xam ne ñetti tomb ci lañ xaaj ci bi tomb bu njëkk bi oo seetloo dañ koo jagle ñaari fan ñu di ko jàngat tomb bu njëkk bi fi ne moo continuer nga xam ni moo continuer ci dimanche ji ak altine ji ci dimanche ji am na juróomi conférence ak discussion ci dimanche ji ci altine ji am na ñeenti conférence wala ñeenti débat ak ay discussion nga gis ni kon juróom-ñeenti jataay juróom-ñeenti toogaay juróom-ñeenti yi dina ci wax dina ci ngir indi ngir akit yaatal akit fexe ba indi ci li gën a am solo nga xam ni dañu dañu wax ni tasawuf boo xoolee tasawuf lii dafa xaw a philosophie boo xoolee gis nga bi ñuy indi ci thème bi bi ñu ko indee ba pare dañu dikk ci def ko ay sous-thème indi tasawuf dëgg-dëgg dëgg-dëggu tasawuf lan mooy tasa tasawuf dëgg ak lan mooy tasawuf ak lan mooy rôle bi muy joué ci tabax ab jullit personnalité bi jullit léegi ñu defal ko ay sous indi bu njëkk bi daal ne lan mooy suufiyanke ko lan mooy suufiyanke définition bi mooy maanaam bu Cheikh Tayyib Abdul Wahab boobu mooy bu Cheikh Saliou Salaam thème bu njëkk bi mhm. mooy lan mooy suufiyanke ak lan mooy solo si suufiyanke am ci kenn ki ak société bi boobu mooy sëñ Saliou Salaam moom moo koy def bu nu noppaloo ba julli timis bu boobaa ci dimaas ji ci la ñuy daal di defaat nag eh, ak texe gu sax mhm. beneen thème sous la mhm. texe gu sax ci li nga xam ni moom mooy soo bëggu nit ki soobu ci sufiyanki boobu oustaz Cheikh Tayyib Abdou Wahab Haaj mi ngay wax Tayyib moom moo koy def kooku nag ku jara bàyyi xel la moom lan mooy cosaanam ak moom soudanais la mhm. waaye yëmut ci eh, soudan rek ku ne xam ne soudan ay borom xam-xam la mhm. oh, ndax réew moo xam ni ci réewi arab yi da nga ciy jël quatre-vingt-quatorze pour cent ay ay borom xam-xam la réewu sudan rek la mhm. quatre-vingt-quatorze pour cent laa la wax ay soudanais ay borom xam-xam lan loolu soudan rek moo ko am ci réewum arab amul waaye dañuy bàkkoo ñoom dañ leen di bàkkoo ndax ñoom dañoo bëgg a bokk ak ñoom nit nag bu dul lislaam ji sax fi ne dañuy damu ni nit ku nit ñu ñuul lan loolu lu am solo la ba pare teg ci kii nii kenn la ci ñi jiite maanaam moom mooy ki jiite eh, mbooloom soudanais yi ci wàllu xam-xam nga xam ne dañoo am benn mbooloo moo xam ne eh, mbooloom xam-xam yi lañ ko tuddee Eh, ka nekk ca bopp ba mooy kii nga xam ne moo ñëw kon kilifa la. Mm. kilifa la lool lool moom fas na yéene ñëw ci colloque bi. waaw ñëw na noppi def ci communication. ñëw na ñëw na fi mu ne si sax ñëw na fi mu mm-hmm. waaw bu ko defee bi ci toppaat di sous thème beneen bu bi ma lay wax mm-hmm. ndax nee la juróom am na ci juróomi conférence ñetteel bi mm-hmm. mooy eh, li ñuy tuddee maanaam lislaam. Eh, waaw bi ñuy tuddee nga xam ne mooy euh, lislaam bu ñu waxee ni euh, problème yi nga lan mooy rôlu tasawuf ci indiwaat tabaxiinu tabax wi nga xam ni tabaxiin wi nga xam ni euh, dañ koo war a tabaxaat personnalité nit ki te teg ko ci alxuraan ak sunna loolu ñu jël ci exemple tasawudu shubbaan maanaam buñ koy jàngalee ñu ji tër ñu ñu def li nu sukkandikoo tasawudu shubbaan muy téereb Sëñ Tuubaa boobu noonu docteur Omar Dia mi ngay wax te moom it kilifa la ndax moo représenté ki nga xam ni mooy eh, naibu raisi jaamaati Gambie mooy représenté recteur université Gambie moom kilifa la moom dool yéen bu bu ko defee léegi ñu tegaat ci ñeenteelu tem muy sori gi nga xam ni moom la nit ñi sori ci wàllu pas-pas ci wàllu ruux ci dund gi ni mu ni nga ni nga xamee noonu la amee ci dund gi waaye am ci société bi sori ruux googu ki ciy waxtaan mooy benn gëstukat bu ñuy wax Yaaqub Maax yi muy directeur waasi wasatiya wasatiya ma ngi ci Belgique mhm. benn eh, école la bu mag benn centre bu mag mhm. boo xam ne nii mu ngi ci Belgique léegi ñu jeexale ci juróomeel ba muy bisu dimaas bi ñu jeexale ko ci léegi daanaka lan tàmbalee woon mhm. mooy dëgg-dëggu tasawuf ak rôle bi muy joué ci tabax nit ak nité mhm. personnalité nité mhm. waaw mooy bu oustaz Abdourahmane Kunta waaw kay Kunta moom moo koy def mhm. kooku thème bu am solo la ndax moom it traité na ko ay yoon te it eh, gëstu loolu wet kooku la doon gëstu te jàmbaar la ci lool moom it eh, thème bu am solo la bu ko defee kon lii mooy thème boobu ngay wax waaye thème boobu dafa am solo ba nga xam ne eh, boo xoolee tasawuf bu nu waxtaanee ci tasawuf te xamuñu lan mooy tasawuf du am njëriñ léegi bu ñu waxtaanee tasawuf te xamuñu lan mooy rôle bi muy suyee ci société bi du am njëriñ. Mhm. bu ñu waxtaanee tasawuf te xamunu ba tey tasawuf ni nga xamee ni noonu lay tabaxi nit. Mhm. du am solo mooy tax ñu indi suuteem yooyu mu topp thème bële. waaw muy euh, lu am solo euh, oustaz euh, Serigne Moussa Ndoye mhm. teewal fii waa Rawdu Rayaahiin bokk ci comité scientifique bu colloque bi mu feggoog ba tey oustaz Mouhamed Sarr ci laaj yi nga xamante ni ñu koy laaj day mel ni nag. waxtu timis bi dafa jege. kon dañuy bàyyi ñu teel ñu antenne bi tuuti. Hmm. ñu mën a noddu. dem ci julli gi incha allah bu ñu dellusee hmm. mën a jokkoo waa Dakar fi nga xamante ni fa lañu toll ci colloque ouverture bi mu doon kon seen jataay rek spécial bi nga xamante ni mooy ouverture officielle lu deuxième colloque international sur le ñu di ko ubbee tey ci King Fahd Palace ci Ndakaaru incha allah liggéey itam war a wéy ci Sénégal kon ñu delloo waa régie antenne bi incha allah bu ñu noddee julli mën a ñëw wéyale jokkoo ko waa Ndakaaru jërëjëf وعجبا لمن بدون اهتدى